Cheikh Ahmad Bamba ndax Serigne Touba digganteem ak yàlla sunu borom bëggante la Serigne dafa bëgg yàlla lool ba nga xam ne ku bëgg Serigne Touba rek bëgg nga yàlla yàlla it. bëgg sëriñ tubaa lool ba ku bëgg sëriñ tubaa rek mu bëgg la bëgg gi sëriñ tubaa ci nun nag kenn ku ne noo ko toll rek demale defale moo tax mbëkk yu lu ne lu ne dana ko am ndax ni mu bëggee Serigne Touba nee noonu la ko yàlla y defale moo tax lu ne dana ko am dana ko man itam sëriñ bi nee na mi ngi koy ñaanal ba pas-pasam ci sëriñ bi di yokk rek ndax yéene lañ ko lu baax lu ne ndax ni mu mel sëriñ Tuubaa ndax ni mel ci sëriñ Tuubaa moo tax nu yéene ko lu nekk kon kon daal fiñ bëgg mu yegg fa yàlla na ko fa yàlla yeggale ci barke borom Tuuba am nañ ci yaakaar bu baax ndax lii lépp bëggati mbiri nit ñi moo tax nit ñi nag kuy def loo xam ne dina bëgg a dimbali yàlla moo la ciy jàppale rawatina fii ci Tuubaa nag jërë ngeen